mbok ya xarit yi ngi leen di nuyu di leen ziar di amat mbégte ak kontante jàkkaarloog yoon ci chaîne bu mag bi di lin Motivation tay nak ñu ngi fi nga xamanteni ni parcel set ci kenn ko xamanteni ni ngi def ay preuve am ci lamb muy Mbacké fay la grand champion mo mujjé daan ki nga xamanteni ni maji maji euh, jël bu reuy ci arène nationale way mbok yi dama koy bay mu nuyu bu ko défé ñu woyal li nga xamanteni ni waxtaan bi Mbacké fay ma lay ziar wa Khalil ma ngi lay ziar tey ginnaaw ma sante yalla julli ci yonent bi maa sante sama ñaari wajur bu baax baax di sante fi ma dekk muy parcel centre 1 ba 26 rawatina quartier bi moo dëkk muy unité 12 sant suma waa dëkk waa ceeb maa leen sant bu baax di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp képp koo xam ne yow soppee Mbacké rek ma leen maa ngi lay sant di sant di nuyu sama yaay moo fati maa ngi koy sant bu baax borom Sidi Alioune Sow di nuyu Papa Ndiaye suma papa suma xarit Sa Touba suma koy nuyu di ko sant di ko gërëm Kanji production xam nga gars yi may àndal yëpp dom Njaw ma koddu Wali Pa Ousmane Dieng Ibou Zo xam nga ñoom aale gaa yëpp daal di sant sama xarit ñoom Boxar Laurent Ousseynou Mbaye Pape Ndiago xam nga gaa yëpp daal maa ngi leen sant ñoom yëpp ñoom Sadia waa koñ bi yëpp daal bàyyi ma kenn ñoom Galas Baye Sall garant yëpp waaw Fallou Couture normal Couture xam nga ak euh, ñoom Bamba ñoom ñëpp daal maa ngi sant gaa yëpp di leen gërëm waaw. ci loone waaw maa ngi ci rek. Hmm. waaw xëy di entraîné rek nekk sama bopp. Hmm. toog di xaar quoi. Hmm. Euh, bi ba tey ndax ñu ngi lay proposé ay combat waaw bu ma bëree ba pare ñu may proposé ay combat mais combat yi ñu may proposé moom arrangé wul mhm. waaw tey moom xam nga tamit mënoo ñu mënoo jeexal say morom il faut tamit xam nga gars yi jox la combat xam ne combat jànk la mhm. jox la say morom nga bëreeg ñoom waaw bu ma bëree ba pare proposé nañu ma fi ay Tafa Gueye 2 man leen non non man du ma bëreeg ñooñu mhm. ay Tafa Gueye 2 du ma bëreeg ñoom proposé nañu ma ay adversaires yu bari mais ñooñu arrangé wuñu ma quoi waaw moo tax bëgg lu nooy daal waaw bëgguma lu nooy daal man bu ma soñee ñu jox ma ci booy saf-saf yi booy yi nga xam dañ naan ay révélation lañ ma dëggal sam bopp. ay der lañ quoi. lañ boo yooyu la soxla quoi. Hmm. waaw combat bu saf sàpp daal nga bëgg. waaw combat bu saf sàpp bu metti hmm. bu metti trop. wallahi moom laa bëgg. Hmm. parce que combat tey xam nga ñi ma bëreel ñëpp dëgg la ay ay mbër lañ comme mbër yi man quoi. mais bokkuñu. buñ sumeekoo ma sumeeku sax da ngay xam ne ñii bokkuñu. waaw bu ma soñoon nag ñu sumeeku koo xam ne moom mooy ëpp fuuf. mat ma ñett. waaw boobaa ci laay gën a wane sam bopp. Euh, euh, mu dee. tey mu dee combat tey mu dee voilà yow xale yaa ko nand yow. moom bëgg daal <laughs> waaw moom laa bëgg. mais waaw. yi. waaw séance d' entraînement comme instant bi nii mun saison bi gëm naa ne mënuñu cee bëriwaat. Mhm. dañuy wàññi rek dañuy maintien rek. Mhm. waaw di dem géej saal di dem géej saal rek di maintien mooy lool entraînement jarul muy intense yenn ko quoi. mooy loolu. Athia mu noonu nee naa leen le grand champion Mbacké Faye la mais Mbacké fay euh, tey jii nii nan nga gisee li nga xamante ne mooy làmb ci mhm. cool yi bëri na réeroo am na ci euh, mbër yu ndaw yi ak mbari yu mag yi non réeroo amul ñàkk waxtaan moo amul rek moo am rek mais réeroo amul quoi mm. parce que mbër yu mag yi xam ma ñoom am nañ li ñuy am ba pare man d'accord ma mbër bu ndaw bu toog di xas mbër bu mag tey boo xasee mbër bu mag yow sa bopp nga xas parce que mbër yu mag yi am nañ li ñuy am ba pare ci lamb mm-hmm. comprendre bu leen neexoon tey muy Modou Lo Balla Gaye ñu ñëpp mm-hmm. bu leen neexoon tey ñu bàyyi yàlla may leen ay dénk na leen ay teranga te xam ma am nañ ay bien yoo xam ne tey xam buñ bàyyi lamb sax mun nañ nekk ci loolu mais yow mbër mu ndaw bi amako dara fay ko dara ci lamb bëgg vie wala bëgg nit ñi xam la wala bëgg succès bu mu tax nga taxaw di xass lamb nan ay mbëri ay mooluñu ay warakat lañ bu ne mbeur yow génnee ci sa bop ya da nga waron di wax mbeur lenn nga taxaw défendre ko mais bu ne mbeur yow yow wu ci sa bop parce que yow champion nga mbeur nga licence bi mu am mom nga am licence CNG ben la limay dag mom lay dag li Modou Lo di dag lol man loolu lay dag li Balla di dag loolu lay dag mais tay buñ taxaw di xass mbeur yi ngay nga taxaw di xass mbeur en tant que mbeur won nga taxaw di xass mbeur am na yoo xam ne xalil xaw ma bëgg fii la xaw ma bëgg ku dimbali la xaw ma nu demee noon daal waaw parce que affaire yi ñun làmb ñun làmb la am mhm. kenn gis nga domaine politique domaine politique la ñun ñëpp ay citoyen lañ dañ bàyyi xam ay kii laa àndal ko yooyu amul benn sens mhm. ki nga àndal yow daas ko mu ne sa xol bu heure vote jotee nga dem jël sa carte dem sànni ko ko bu ko yàlla dénkoy ngoon nguur yàlla rek koy joxe te kum fi teg ko foofu war a toog waaw euh, tey nan nga jàngatee situation bi waaw situation bi mooy maanaam politiciens yi dugg nañ suñu biir jaxase ñun mbëri jaxase suñu axlu làmb boole ñëw peuple bi xam te tamit à part gis nga nit ah xalil lu ma koy wax ni maanaam nit yow yow man bu may ànd ak damay ànd ak te yàlla rek tax du ma ànd ngir làmb wala leneen rek leneen domaine ki nga far nag yow la concerné man ki ma faral man la concerné mhm. mais diw ànd nag diw rek déedéet dama war a taxaw di ko saaka wala kii kii baaxul dañoo war gis nga gars yi effiancé gars yi naan leen ay mbëri ay warkat lañ ñooñu ñooñu ñi ngi fi ñu toog toog am li ñuy am ba pare yow mbër bi nag boo ñàkkee xel di leen déglu di xas mbër yow yaa ngi yàqal sa bopp te xamoo ko gis nga booy fi dégg nii booy mbëri ndaw yi fi ñuy xas ay mbëri kenn amu ci sax scooter bu mu dawal booy mbëri booy mbëri yi ñun ñëpp suñu génération kenn amu ci scooter bu ñu dawal te ñooñu yoon li ñuy wax gëmuñu ko wallaahi li ñuy wax ñoom ñëpp gëmuñu ko man gis naa ci mbër boo xam ne mi ngi taxaw naan jeunesse bi laa àndal wallahi azim Pape Malick Ndour woo na ko jox ko xaalis mu dem lay wax ne wallahi azim billahi wallahi wa li may wax bu dee amul yàlla bu ma alquranu karim dañuy wax dañuy wax ngir maanaam mhm. bëgg bëgg bës xawma bëgg ku le faral wala bëgg ku la yem champion kenn du ko def kenn. deug la champion ya koy def sa bop parce que deug nañ am yene mbeur yu genn ne yene mbeur yi gis ñuy kaas dañoo ñamul bu ñu ñamoon dañuy nopi waaye yow mala sum way fi ku ñu woo encaissé nga encaissé dootoo waxati. Mhm. barki alcorane gis nga senegal mhm. gaay nañ baaji dox ci mayenu gaay deug la peuple bi nag. nañ bàyyi di dox seen main di wax loo xam ne gëmuñu ko man xalil lu ma gëmul du ma ko def man bu ma nee ànduma xalil mhm. xalil fu mu teg tànkam du ma fa teg sama tànk lu ma woo du ma jox jëluma ma fu mu taxaw wax bugguma mhm. xalil mënu wax lu ma dégg parce que man ànduma xalil ni da ngay gore ba dee mhm. gis nga ngor ak sa dignité ak sa personnalité yaa koy sàmmal sa bopp ak nit am na droit faral comme mu neex apare nag commentaire yi ku mu neex mun nga wax lu la neex lu la neex mun nga wax mais man sama xalaat bu li ma gis mm. mooy bay mbëri ndaw yi nañ arrêté di xas mbëri mag yi yow foo far man faruma man peuple bi laa àndal waaw man jeunesse jeune laa jeunesse bi laa àndal mënu maa ànd ak keneen ku dul jeunesse mais man nag ki ma faral ki nekk sama xol man xam naa ko bu élection jotee dinaa jël sama carte dem votel ko mais euh, tey jii gis nañ ah, Boy ñaa def sortie Balla Gaye def sortie Modou loo def sortie yooyu sortie nan ban jàngat nga ci am quoi yi may sotti mooy man dañuy seetal seen bopp rek mhm. tey ñooñu amul état bi a jox mhm. lu leen lu leen lu leen kii xëy mhm. na tey benn taxaan ngay modloo benn taxaan ngay fay ko ay centaine de millions ay cent millions état dala mën a jox cent millions may la ko nii nii mën na ko sax mais du ko def cent millions yëkkati ko may ko benn nit loolu yombul de xalil tey modloo ñaari combat la benn lekkul ñaari avance ñaari avance yi bu nekk boo ko calculé ci exemple rek ku bëree bu fekkee cent millions cent millions loolu ñaata la kon modloo dañ ko jox benn dix millions wala benn cinq millions muy muy jaay amna na xamne même bu bu do wax bu dofé sax nopi yu koy deglo ño wara wer ndax mbeur war na genn publiquement taxone ki la andal comme boy ñaanu mu ko defé waaw man lolu ben côté d' mu mhm. parce que porteur de voix nga. Mhm. mais nit nak ça dépend ci nit ñi na am ñoo xam dañu degg boy ñaan dafa degg mhm. moo tax mu ne mom taxaw ne ki la andal mais man pour man porteur de voix. da nga wara bolé lo neex ak la naxar yow li neggé sa xol. nga ndës ko japp sa ñambur ba heure vote jot nga dem votel kooku parce que parce la faral am na ñu ànd ak yaa ngi sonn promoteur yaa ngi lebi ñi ñi ngi daw xam ñi ñi ngi amee banque xaalis ñi ñi ngi fëgg kër jàmbur xam te boobu ba tay tamit xam nga situation yi fi mu toll ni ba toll tey xam nga sport bi mi sport yëpp a ngi dox lamb rek a doxul football bi jaraaf Pikine football nañ bëri gi dem pourquoi pas lamb mënul dox Ibulaay sunu frère mm-hmm. jël centaine de million def ko ci lambu tëgg ay xale Youssou Ndour ak Mor Kankan métti na xam nga jël leen tamit aj loo leen seen làmb ci zéro foo ko teg te gars yi di jouer euh, championnat waaw gars yi ñu jouer championnat championnat dox foofu y'a problème parce que ñun suñu njiit bi tamit na ma yàlla jégal mais xam nga mhm. xam nga suñu papa suñu lépp la quoi mais tamit il faut mu xoolaat taxawaayam quoi xoolaat taxawaayam mhm. xoolaat toogaayam quoi mhm. waaw euh, tey euh, nan nga gisee taxawaay ki nga xamante ne mooy Ama Baldé ci làmb wa Ama ah, mom champion la quoi man mom Ama ah, wax deug yalla xam awmu luma lu koy wax quoi dama koy massaw rek. dëgg la di wax xam liko dal tamit metna na trop. Mm-hmm. parce que Ama balde champion la. Mm-hmm. te bo ba tey xam mom mm-hmm. gennul wax fen démentiru fen, mom bo ba day rafetal. dëgg la déggoo moom ci ben discours wax nako ko. man jeunesse bi la andal mais buma fekkone fekkuma fi mo tax dew mon pale. mais bu en tant que mbeur day dem. mais mom kima andal mom la concerne concerne wul nit mais xam tamit bëri na ñoo xam ne yow Sénégal moo naqaree waxal jamono ji dafa naqaree waxee. Mm. Sénégal dafa nax da ngay wax lii ñu dagg lii mm. génnee la lee xam nga mm. taxaw wax la loo xam ne xam nga say waajur sax bu ñu ko déggee bu ñu tëddee duñ ne la. boo waxee lu baax ñu critiqué la boo waxul lu baax ñu ñu ñu boo waxee lu baax ñu critiqué la mais tey jii nii Ama Baldé toog 5 ans bëri woo euh, bëriwul mais tey jii yow en tant yooyu. bu la dalon nan ko way man 6 mois la tok la tok bërew ma 6 mois ma tawatone fi tok 6 mois bërew ma rek dama ko yegg gaan xalil taxaw na damay xey sa am problème ndek gaan barki yalla 6 mois la tok bërew ma gaan mënuma def dara mm-hmm. xey am problème xaliss gaan sama boy ñom Laurent ñomay defa ñomay jek jek jox ma monine ma té xam nga ñom black sama doom nday sama xarit black suma xarit suma lepp mm-hmm. waaw ñu ma waroon njëkk nuyu ci la bokku ma kok Allah kooku suma waay la suma xarit la kooku suma frère la mom ñoo bo no defando lepp mak mom manam yalla les waxul dal mom xamna man xamna black yow amal jam rek gaan deug la waaw ah, no nan nga gisee ki nga xamantene moy molo sorti bu mu def ah, ci plateau ah, bi nga xamantene mom lako bekay invité won né ama balla ñi ko encadrer dañu xawa dof yoyu nan nga ko jangate wa may genn may gis na gaay di genn di wax xam di genn di demante na molo dafa yabaare comme sunu grand pop sar xam ñu ngi koy nuyu mm-hmm. ma koy gis muy genn di demante di saga di xam di wax yo xamne pour man loolu àdduna jaru ko quoi. Mhm. parce que ñoom. Mhm. ñoom ñoo ko njëkkee. Mhm. comprendre ñoom ñoo ko njëkkee. ñoom ñoo ko njëkkee ñoom ñoo ko njëkkee ñoom wax nañ fi Modou lu ne. suñu père Abdou Bakhoum taxaw fi ne ma ñaari jabaram xaw ma nangam nangam dépassé. dëgg la mi ngi toog moom Modou benn ñoom da leen tontu rek ñu mer. parce que Sénégal moom xamuñu ku tooñ. ku fayu la xam. dëgg la mais Modou loolu mu wax war na ko wax. waaw mais loolu moom man rafetlu ma ko dafa juum quoi parce que bu dul dara ñooy ay kilifa lañ. dëgg la xam nga traité len comme un dof rafetul quoi djekul mais tamit ñom ñom ñom yag nañ wax Modou lu raw lool te Modou mi ngi japp ñàmbaram tok du len falé wallahi Abdou Diakhoum ak pap sar yag nañ wax Modou lu ne. te Modou mi ngi mom Modou démentirul kenn mi ngi tok japp jàpp falé wul kenn tok japp nek ci ruqam di andane comme Kanta ay staff Ama Baldé lool duma ci débat parce que man loolu. amu ci lu maîtriser wu moko mais te aw ci lu leer mais amna ñu né Modou gaay dañ koy déranger moy staff Ama Baldé ak yeen supporters non dérangement amu ci Modou Lo ñaata la bëree. bëri na. ñaata kan ak kan la bëreel. ay champion bu demee ba staff Ama di ko déstabiliser kon Modou Lo dese naa nekk mental bi dese naa baax. Mhm. Modou Lo de sportif kon au niveau. mais staff Ama mënuñu déstabiliser Modou Lo ci benn côté. mënul nekk loolu mënul nekk parce que amuñu xam-xam boobu xam-xam bu déstabiliser Modou Lo lañ amul. Modou Lo champion la Modou Lo bëri naa ku ne. Mhm. bëri naa ñaata champion la fi bëreel. waaw mais gars yi ne gars yi ne wiiri wiiri wiiri jaari ndaari. waaw yàgg yàgg ñoom ñaar dinañ bëre. parce que loolu par force la. xalil mhm. yow nga lekk sama avance ma lekk sama avance yàgg yàgg maa yow dañuy bëri contrat moo ñu tënk. yàgg yàgg dañuy bëre. mais waa nee na Modou Lo non kon xanaa ama kon day tapale. <laughs> loolu ah? wax de. <laughs> waaw blessure moom mënul ñàkk sport ñun sport bi ñuy def moo gën a moo moo gën a si àdduna pour nga gaañu day yomb. parce que ñun sport li ñuy def si sport. li li sport laaj ñun defuñu si dara. ñun xamuñu ni ñuy yëkkatee weñ xamuñu ni ñu entraîné ñun pour ñun bu méttiwul sax entraîné wuñ pour ñu gaañu day yomb. te amuñu ay haut niveau yoo xam ne ñuy jël ñu teg leen nangam. lan la tax moo tax mbër di jóge fii Sénégal hmm. fi amul saal amul din hmm, am na amul foo mën a récupérer lan moo tax mbër di jóge fii nii dem ba Europe di fay ay centaine de millions pour entraîner parce que ñun li ñu entraîner xamuñu ko ñun xamuñu dara ci li ñuy def hmm. pour ñu gaañ moo tax day yomb macha allah fu may jeexalee rek euh, yow mooy euh, tey ji nan nga gisee yenn blessure euh, blessure yu yomb yi ay temps pour mbër blessé sax problème lay nekk mais léegi da nga gis combat am des deux ou trois jours ñu ne mbër bi blessé na yooyu ban jàng nga ci am. loolu footu CNG la rek. footu CNG la parce que CNG tey mbër bu defee bu bu signé contrat bañ rek da ko war a topp jusqu'au bout jour da nga war a topp. amul benn jour boo war a tëbal da nga ko a topp di ko saytu di ko xool boole ko ay nit boole ko ay médecins yu wóor yoo xam dañ koy suivre ci lépp. comprendre loolu bu fekkee sax bu bu aajoo sax bu fekkee mbër mi buñ ko fayee avance am dagg ci dañuy dagg ci xaalisam pour utal ko ben médecin bu koy topp. mu xam li muy entraîné xam fi muy nekk xam fi muy teg tànkam xam lii parce que dañ war a topp dañ ko war a suivre. tey bu jour imaginer jour championnat. Mhm. tey boo xasee ba dugg hiver ba euh, dugg hivernal. Mhm. ba championnat ubbi. Mhm. léegi fan fooy dem ñoom ñoo lay entraîné. ñoo lay suivre ñooy xam ci li ngay nekk. te ñoom ñoo yëkkati seen xaalis di la ko jox. kon moo tax c'est normal ñu suivre la. léegi nag promoteur bi moom daa war a CNG daa war a jël ci motuwaay ci côté boobu noonu. di suivre mbër yi xam nga parce que tamit yi gis xam am na yoo xam ay blessures yoo xam ne wax ay blessures tapale la man sama combat pass waaye ci loolu hôpital laa jógee dem wallahi azim boo ni boo bëggee moom boo paree moo won la vidéo sama combat bi pass ci loolu hôpital maag booy bi ñoo ànd dem ay prévision anesthésie bi ma doog a dem bëri ji wallahi azim waaw am na yoo xam ne ay tapale la quoi même koolu comme pare combat des ay deux jours nga ay dama gaañ dama blessé xam nga yooyu moom wax dëgg yàlla rafetlu mais mais mais sëriñ si tamit moom sa waay ñoom ñi ngeen. yaa no loolu jékku non loolu sëriñu TikTok yi la rek. Ah. sëriñu TikTok yi la rek wax dëgg mm-hmm. yàlla. waaw sëriñu TikTok yi la rek mais mm-hmm. gaan moom. Mm-hmm. fii yàllaa fi nekk waa. dëgg la mais dama doon dégg ñu ne euh, sa diggante ki nga xamante ne mooy euh, Pokola Baldé am nañu am na ay promoteurs yu yu ko doon euh, bëggoon tëgg ak yooyu noonu am na ay promoteurs daal yu si nekk ak yooyu noonu ndax yooyu mën nga ñu see indil ay leeral waaw man nag wooguñ ma waxaguñ ma dara ah. waaw man moom woo franchement dëgg rek neexee yàlla wooguñ ma waxaguñ ma mais nak dégg naa ci ay rumeur quoi gars yi bëgg nañ Mbacké ak Pokola mais lamb la rek Pokola champion la waaw champion la mbër la mbër la mi ngi def ay preuve maa ngi def sumay preuve bu ñu lamb boole dañuy bëri incha allah. mais est ce que yow tey ji bu ñu la indiloon avance Pokola ñu ne la am moo ngi nii di nga ko laal. waaw xanaa Pokola du mbër wala daa am leneen lu rax. non daa am leneen lu rax. loolu laa rax xanaa yoru ñaari loxo yor ñaari loxo. yor na ñaari loxo ñaari tànk la may góor rek affaire rek góor la c'est instant yi jamono période buñ tollu dafa xaw dangereux non du loolu gembe ñun ñep xamante nañ hmm. ñun ñep xamante nañ champion nga nanan nga nak ñun ñep ay nanan la ñun ñep xamante nañ suñu biir hmm. lamb la rek hmm. saay mënul wessu lu lamb bu ñewé gor la moy gor bu doré damay fay wala man bu mako doré day fay mais yo li nga wax mom sax loolu la wax néna mom combat combat jank la bëgg combat bu saf sap mom mom la bëgg wa kon kon kan kay ku bëgg ko wétal ak ku tëj ku tëjal bunt bi xawma duñ koy olof di waxé non du len bolé wa kon comme mom làmbu jang la bëgg té man ni làmbu jang la bëgg man paré na pour bëreñ ñëpp wa man paré na pour ñëpp wa amna solo ci tantal nga gërëm ci li nga xamanteni moy euh, mbir mi wa xali di garam di gërëm rek sant suma wa dëkk wa ceeb ma ngi leen sant bu baax baax di wa sama wa dëkk jang yi suñu jang dëkk yi xam bu tabaské ba mom 2 jours la ñu ci wo képp kuy doom ciép ciép rek ak képp kuy doom bol bol ñu ngi la ci wo ci jang yi xam wa ciép ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen wax ma ngi ñëw tabaski ci inshallah rabbi yalla yobu ci ak jam mm-hmm. waaw di sant sama wa koñ ñëpp nak mm-hmm. koñ bi bu ma né koñ bi pa ak mère bayuma kenn mm-hmm. suma jigen Mati ndjay suma xarit suma lepp señ dam Jonn ma ngi koy sant bu baax baax baax suma papa Papa ndjay du ma encore une fois ma ngi koy santaat di ko gërëm bu baax baax baax baax waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp kanti production Kandji production maa ngi koy sant bu baax kooku social bi muy def gars yi gis nañ ko waaw di ko wax ne nag Kandji amaguma xar. amagoo xar waaw dama war a am xar de. ndeysaan <laughs> ah xalit dama war a am xar de dama war a xam amaguñu xar waaw. amaguñu xar xam nga moom wax dëgg yàlla sama lépp la. ndeysaan Kandji daf may jàppale ci côté bu ne. Mhm. wallaahi daf may woo sax naa ma jafe-jafe lan la. dëgg la wallaahi azim te loolu yombul si doomu aadama. ñu may jàppale fépp di sant waa Sall bi may àndal nag waa Cité Aliou Sow grand jibiloo xam nga waa Dakar fitness bi yëpp maa ngi leen sant bu baax mbër yi may àndal ne la foofu ñoom ñang baaloo mhm. ñang balu suma xarit suma lepp waaw ma ngi koy sant ñom musique gaay yëpp daal ngi leen di parce que ñang mom champion la ñang borom baax la borom cambrène wa ñom talfa gaay yëpp ngi leen di xam nga ñom garga de gaay dal daal maa ngi leen di bu baax ñom ñep mbeur rok energie yëpp suma papa jegaan pambay jegaan mom sunu mooy sunu dam su guer suma cheikh ma ngi leen di bégee ñoom ñëpp waa staff rok energie bi ñun amuñ lu rok energie mhm. te liñ mëna doon rok energie moo ko dem di massaw tamit ibulaay sunu promoteur bi ñu koy masawu bu baax a baax a baax a baax di santaat saa Touba di santaat saa Touba. bu baax a baax a baax. Mhm. jaajëf. ayca moo ngi noonu am na solo la grand champion euh, Mbacke fay dégg ngeen lu mu wax am na solo bu baax a baax nee naa leen daanaan la eh? champion la bu bëree mu neex waaye euh, maa ngi nuyu ki nga xamante ne mooy xës daali moom mi nga xamante ni mooy génnee image yu leer yi maa ngi koy kontaane bu baax a baax du nuyu képp koo xamante yaa ngi bàyyi xel euh, chaîne bi di Lutte Motivation euh, ñu ngi lay jaajëfal di la kontaane di wax ñi nga xamante ne abonné guñu si chaîne bi ñu daw abonné ndax lañ fa mën a dugal ngeen seetaan ko di wax seen émission xaar leen ko ci beneen numéro ak beneen daanaan jaa jëf